ngi ngi ci kër champion ñu ngi ci wàccaay bi a quelques heures du combat champion tëju na ci biir ne gisante nañ sànq mais il respire la forme doomu grand yow dañuy jël quelques ñoo xam ne dañu bokk ci biir staff bi laaj leen ci wàccaay bi grand maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar maa ngi leen di di leen ziar sant bu baax alhamdulilah euh, naka wàccaay bi tey yéen a ubbi làmb ji gannaaw koor gi gannaaw bër bi yéen a ubbi làmb ji ak làmb bu doy waar Zarko bàyyi ma ñoom salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen gërëm di leen wax ngeen ñaanal ñu am ndam làmb ji ñu jëm nii suñu làmb la ñun ñoo ko bëggal suñu bopp. parce que Baye Mbañoon mu dafa ne ko bañ nekkee Europe di liggéey Baye Mbañoon moom lañ jëloon avance am tax ñu ñibbisi yàlla dogal ñoom am beneen combat ci kanam moom jël ko am ci ndam dañuy ñaan suñu borom dafa laaj ñu ndam ci bii nii ñu continuer suñu lancé ñun loolu rek la ñuy wax parce que combat bi lim ñu jaral ñun xam nañ ko. moom li ko li mu ko jaral xam na ko moom baay Mandione. waaw Baye Mandione combat bi mënu ko jaral lum ñu jaralul parce que Baye Mandione moom mu ngi retraite Baye Mandione moom moom mu ngi. kii di def ay preuve am ñëw daan fi waaju doy waar daan fi roi wu roi wu Gambie. non làmb bu ñu koy wax làmb bu koy wax Sénégal moo tax ñuy wax donte booy boobu mën na bëre champion la waaye sunu làmb Sénégal bii nii. kooku mënu ci am lu bari quoi. champion ngay waxal. non Baye Mandione mënu am ci ñun lu bari waaw te duñ ko ci may dara nag loolu moom dafa leer naa ñu dañ ko ci may dara ndax lii ñun ñun dañ daf ñu jaral combat bi fi mu ñu nar a yóbbu ñun xam nañ ko. ni mu toll bunt yu bëri la leen ñu ubbi. moo tax nag ñu fonk ko fonk boo xamante ne nii def nañ ci lu ñu mosut a def ci làmb waaw. ci cumikaay ci cumikaay bi ci encadrement bi ci entraînement bi. dem ba Europe. non entraînement dem ba Europe loolu moom dañ fa jiitu sax làmb ji parce que ñun Zarko ku ko xam xam ne entraînement li mu ko jaral jaralu ko benn mbër ci Sénégal hmm. waaw kooku kaay ñu lekk laax la ci moom. loolu du dara. lépp jaamu kay. waaw non man amu pression parce que sama mag la maa caaru kër gi soo xoolee maanaam ñun làmb maanaam amuñu si pression quoi parce que am nañu maanaam façon jour bu nekk mais lenn rek mooñ jaaxal mooy bàyyi ma joon kenn du xam maanaam ban. temps lay andi stratégie ba muy andi. ndaanaan la non ndaanaan la bëri naa ku ne bëri naa ay ay champion mais dafa fekk ni ñun ñoo ko gën a soxla làmb ji parce que lu mbon bon toog nañ lu mat cinq ans ñëw ñu si làmb ñu bàyyi loolu jugee Europe ñëw kon am na loo xam ne bëgg nañ ko wane parce que tamit Zarko bu nekk si si boobu lañu ñu indiwaat parce que soo xoolee combat bi passé léegi ñun suñu combat du ñëw rek farxe farxe ko déedéet. du def yëfu kii wam yooyu noonu yëfu booy grand yooyu. déedéet loolu loolu maanaam. jeex na ci bundu kër gi la yem. loolu ci bundu kër gi la te tey incha allah suñ demee ba esaat di ngeen xam ne maanaam. Zarko bu njëkk ba ak bii maanaam du benn. ma ñëw ma jël ñaar ñee balaa ñu may balaa ñu may rëcc. voilà waa mais grand. waaw grand bien. waaye sant yàlla bu baax. waa doomu grand fa mi ngi nii kay. lan lan lan nga gis ci mbër. yéen a ngi nekk depuis temps yëpp ba tey jii nii man gis naa ko sànq quoi man am na lu ma jàngat ci moom. mais lan nga gis si moom loo xam ne xëy na dinañ ko gis ci làmb. waaw moom na tey rek na tey rek comme lu mu doon bëree bu njëkk ba bu mu ko indi na tey rek déglu Baye Mandione xool lu muy indi waaw kon du song ji na xaar rek ah, wala mu jéem ko cokkaas bàyyi mu ñoon fay si mu jàpp ko daan ko ñu ñibbisi waaw loolu la ñaan mu indi ndam li garaaf waa ah, garaaf ñoo ko soxla quoi ñoo soxla ndam li waaw. sant muñ ak moytu. Ah, moytu de. ci lañ dëkk. tey di ngeen moytu. déedéet tey tey contre jour mi naaj. déedéet tey dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy moytu. moytu mënuñu koo def. te ñu am dañ naan gaynde la. bu ñu nee yow génn nga ñu ne gaan doomu grand lu mu doon moom. mais gaynde bi daf ko doon defloo ay erreur yu bëri moo ki muy bëreel ñoo yem te ki muy bëreel nee na léegi changé na moom est ce que jotul mu changé. léegi moom ci changement am ñun ay dirigeant am ñoo ko def ci moom changement du doole du xadar xel kese la ak dal te dalang ci moom car macha allah. xadar ko doon daan loolu njumte la. mbaa yi mu daan yëpp xadar ko daan. xam nga boo nekkee xale bu ñu nee benn da nga yaakaar ne asamaan mën nga koo téye mais mënut a ne képp kuy dund mënoo téye li yàlla def rek mooy ni koy ñaan ñun ñu yàgg ko ko wax te gis mu ngi koy doxee te mu ngi koy jëfee mooy na dal bu mu xëccoo bu mu xuloo la mu wax ci signature bi yëpp baax na. jeex na loolu jeex na. déedéet pour toroxal la eh pour toroxal waa ji la waa ji mer-meram bu ñëwee ñu nax ko ci daan ko te loolu lay ñaan yàlla borom mbaar bi mën na am na ci kattanam ñu koy ñaan yàlla ñoo mooy ndam mu sedd ñu daan ko jëlee bu rëy ñu koy waxtaanee. bu toog di xaar bàyyi ma njoon wala. kooku moom boo xaaree day ñëw. bàyyi ma njoon. xar bu jëm daral la wàcc de ñàkk wàcc dee. Ah, wóolu nga sa bopp de. buntu fooraa lay wàcc. dee force. moom jege jege na sax fooraam moom. léegi nag ki mën a rey nag moom la te ñu nga koy ñaan moom yàlla ñu kattanal gaa ñu rey ko rey bu gën a yomb boobu moo ñu metti. Ah, moom jàpp nga torop. torop ndam rek laa gis. taalal la micro sax mooy noonu. waaw yaa ngi ci blouson yi maa ngi la gis sànq yaa ngi ci tike yi. waaw yaa ngi ci mbër. Uh-huh. yow. xam naa la lu yàgg ak mbër lan nga ko wax parce que tey buntu la ci moom buntu làmbam mën nañ wax ne tey dafa ubbee bu baax sax tey mooy la numéro bañ dalee bëre ba bëri combat bi fi ñu fi ma ko teg man fi ma ko teg kenn tegul ko fa bii victoire bi may gën a neex moom mooy doon bii incha allah fii suñu yoonu làmb la ubbeeku ko mu may la ndam yow sa bopp personnellement incha allah bu soobee yàlla waaw moom lay ñaan yàlla yàlla moo yor lépp moom noo gisee si ban état d'esprit la. état de forme boo xam ne nii xoolal bu ma demee sax du ma xooj entraînement gars yi bu ñuy dem sax man du ma dem. sa waa ji nii ma ne leen dem leen tëdd nelaw. parce que man li ma gis dal na sama xel quoi. man ngeen waxante temps yëpp ba concentration combat bi rek amul leneen lu muy fem demul fenn lijjantiwul dara laa mujj rek. nga daan xam na ko. bu baax moo tax ñu ñëwaat gis nga retour bi ñu ñëwee nii moom lay dem déggoo lim la wax su ma làmba dootul gaaw day def ndànk tekk tekk làmb ji làmb tekk la. bu bëri moom tam mu am xadar combat boobu ngeen koy gérer. face yi ñu dem yëpp seetaan nga ko dafa nem parce que duñu morom ñoo ko raw ci loolu bu dee loolu la rek duñ ci morom am joxu leen làmb ji avant. kan moom. non tekk nem moom am expérience non day ñëw nappañu ñu ñëw gën ko jéggi romb ko loolu moo tax mu taxaw di di teey loolu moo tax. xam nga li ñuy wax matta bu xamoon fu muy mu jee bu rombee sën da koy raama la sax xam nga wolof boobu. xam nga ma tamit boo ko xambee fii sën moom ña ca àll baa koy xam boo ko xambee fii da ngay jël mujjee ko doom lay doon nga yóbbu ko ci sën ba dem tuuri moo tax ma wax loolu olof la waa Grand Yoff amul kenn ku ñu bàyyi zone 7B tout boo limee da ngay juum amul kenn ku ñu bàyyi te ñëpp wane nañ ko open press bi kenn desul te ñëpp nee nañ ñu dina ñëw stade stade dinañ ko duy ba mu fees incha allah yàlla may ñu ndam ñu ñëw feete ko Pape Maguette. ça va. ah tiit foo fekk ku tiit si weeyi lay nekk. non tiituma de damaa xaw a feebar rek tey. mais ah, mais mënu ma a ñëw quoi. jaay bee la feebar loo wala stress bi la wala. non pas stress dama xaw a tawat rek. avant lamb ji non avant la voilà climat bi la. ñoon laalu la ci côté. non coobu la liggéeyu la yow. non munu ko man am naa ñaanu. waa liggéey mbër da ñi mu àndal ñëpp. bàyyi ma ñoon damay tooñ rek. non man am naa ñaanu waajur. loolu moom sama xel dal na si sama yaay bu jullee man la may man lay ñaanal ak ay samay rak ak samay mag. léegi nga champion lan lan ngay waxante moom ba ba sànq nii lan ngeen mujjee waxante ci combat bi. champion amul luñ koy wax parce que moom xam na li koy xaar lambam bii lamb bu mu war a gën a fonk bii la parce que bii da koy déclassé bii da koy yëkkati mu dem fu ko neex après bu daanee moom mooy choisir kenn du ko choisiral c'est-à-dire que amuñu luñ koy wax ñun leen rek. retard bi da koy defaraat. waaw rek non du woon retard sax ay tolof tolof la woon rek. mu demoon Europe toog fo kon bëriwul. muy def lu ko neex waxal lool man moom ñeme naa ko muy def lu ko daa dem Europe def lu ko neex ñëw fii def lu ko neex bu bëree daanu ñëw di def lu ko neex daanu. no du def lu ko neex erreur la rek parce nit ki boo xamoon li lay daan doo ko def. erreur de. non erreur la ñun xamante ne exact ko ba muy mbapat. ñun ñooy ànd ak moom ay raqam lañ mais ba muy ba léegi ñun la wóolu ci ginnaaw ëpp moo koy daan defe na ku mu jàkkaarlool moo ko mën xaral bu ëpp moom du dara lu dul respecté adversaire xaral ëpp lu dul dereetu gaynde bi daw ci moom rek booy Grand Yoff la non booy Grand Yoff la booy Grand Yoff xam nga kenn du ko jam naa ni xadar bi loolu rek ko waral mais du leneen làmb ji nag ñu ngi ñaan yàlla may ko ci ndam bu defee li mu war a def yàlla da koy may ndam parce que wax na ko si open press yi sama làmb dootul gaar dama koy cons ba xam fi ma war a dem ma jàpp ma daan bàyyi ma doon gis nga li nit ñi di wax si télé yi naan Zarko am na xadar bàyyi ma am na xadar bëree noonu de doxul jinne jàpp ko nit ñee nekk di wax rek euphorie bi am mais bu arbitre ne si prix xam na li muy def xel lay teg Zarko nan Zarko nante la booy town la day teg xel ba génn ci tey amul dara lu muy yàqamti amul dara lu muy pasar pasaree bii làmb ji da koy yëkkati moom xam na ko de ñun amuñu dara dara lu ñu wax xam lu ñu am ak ko fu mu toll nii heure bi jot gars yi ànd ak moom dem stade yóbbu ko comme d'habitude comme d'habitude làmb ji nag bërki dem wax naa ko nee naa ko gañel pour ñun yow bul bëreel bul gañe sax pour yow gañel pour waa Grand Yoff di ñaan yàlla nag may ko ndam yeneen combat topp ci yàlla defal ko sutura mais wér tamit aussi adversaire am làmb ji daal képp fay ñëw aussi di woote non violence grand sax xamuñu violence des fois deret yee tàng rek mais ku def ku fa def loo fa warul def am na ñu fa nekk. Ah, ma yoon xamul violence. xamul violence kon làmb ji je pense que ni dina am violence violence nag des fois ci mbedd bi la ñii ñibbi ñi leen di te ku si ne bokkul la rek bokkul la te ku ne doo xam fu mu dëkk mais violence la ñuy woote non violence la ñuy woote waaw. bu fekkee ah, maa ngi lay ziar. bëgg fa yàlla sant yàlla rek. waaw non togguma añ togguma añ yaa ngi xool cin bi bàyyi ma ñoon Zarko cin buy baax la benn rukk du sedd suuf buy tàng jër waaw gis nga <laughs> noonu la demee kenn musul gis ni suuf buy ñor ma ne ko noonu la demee suuf buy ñor la benn rukk du sedd ab da ngay ñeex wala waay yow déggoo li ma la wax xanaa suuf buy tàng rek dara du sedd suuf bi fu mu jógee suuf si suuf si fii la jógee ci koñ bi suuf si si koñ bi booy ñooy coppati rek ñëw rek def suuf bi jaaray la jógee am na tuuti suuf géej yaa ngi gis mbër léeg-léeg mu génn xam nga di wasaare booy di leen jox ay bomboo booy ñooy indi suuf si rek jox ko ñu tàngal noonu la demee waaw suuf buy tàng la rek ci biir géew bi noonu rek lay demee waaw ah, ñu ngi fi rek champ non day ñëw taxaw xaar waay ji ñëw cokkaas ko mu daw fekk ko sa waay lu moom daan ko daan du amul fenn ci làmb yaa film nii ba maa ko film nii ñun boo yoree sa mbër xam li mu entraîné beneen mbër du la jaaxal Zarko ñeme na entraînement ragalul loolu moom xam nañ ko suñu mbër Zarko musul am combat ñu tiit ah ñooy ànd ak moom mais duñu tiit ragal bi toujours moo koy yóbbee lu ne paa leen nañ ko wax na toog déglu waaje rek waaji ragalul ñu xam nañ ne waaji ragalul gaynde la ma ne la waaji ko dof dofu caaray ragalul mais loo mu yàgg-yàgg suuf lay mujjee wóor suñu mbër xam suñu entraînement. bi ñoom ni mu toll léegi. non garaawul ñun masse garaawul jaaxaluñu poids garaawul ñun garaawul moom ragaluñu lool bu fekkee ne entraînement woo koŋ loolu jaaxaluñu. jërëjëf na nga def. waaw sant ngay nijaay. lépp jàmm sant alhamdulilah. boot sa loxo yi. waaw dara xamul rek yaa ma gën a xam préparé bis bi rek. waaw kii waaw moo loolu. kii yëf la. Ah. yëf la. am na lu ma yóbbante si yow kii. lan la wax. nee na jàpp waaw moom dama déggoo moom wax ma gën a téye moom laay àndal gisoo ma yàgg na billaahi waaw borom nuuru jalaal ak jamaal borom ñaari leer yi nekk nii daaneel nag yàgg na sànni micro bi ci suuf bi de non bi boobu duggee moo lool bi suuf la jógee bu nduggaale baawee ñor la jógee mu leeraala expliqué nii non yow gisoo yow gisoo loolu sax yow moom tàng mu tàng day gën a tàng non ñoon tàngul sax day tàng tàngalu noon rek saa bu ñu jàpp ko dugal ko si géej gi génneewaat ko. mbër lu ko war mbër ko war mbër moo la gën a xam boppam. mbër xam na lu ko Grand xaar mbër du mbër Grand Yoff la dëgg juróom fi màggee fi Grand Yoff jox boobu xam nga mu am ci lu mu jógee. saa dégg mu am si lu mu jógee waa kon moom bu ñëwee da war a wat gars yi carrément Zarko et retour waa. champion ngi noonu ñu jël ko en image tuuti rek. Hmm? waaw non dañuy génn damay jël image am rek. non non non non non non